waaw. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. di leen ziar bu baax a baax. di ñaanal euh, police bi nga xam si wax dëgg yàlla moo yor sécurité bi di ko ñaanal jàmm. di ñaanal promoteur bi Baba jaw di ko ñaanal jàmm. bis boo xam ni ndaanaan lu ne bëgg na bëre ci bis boobu muy le 25 décembre. Laurent gannaaw bi ñu la nuyoo. nga nuyu mbokk yi lay seetaan nga nuyu mbokk yi nga xam ne mbokk internet yi nga xam ne ñoo ngi toog seen kër di la seetaan. ginnaaw ma sant yàlla. yaay julli si Mariam bu sell mi di sant samay ñaari waajur ya di sant waa jàmm gën ya di sant waa waa fu dul jàmm gën sax ndax man ñëpp may bëggee ya di jégalu ñëpp nag. di sant waa Touba bu baax. waa di sant waa sëñ Fallou sëñ Fallou Mbaraxin Baye Sëñ Mbacke samay ñaan kan Matar Casamance. day sonn si man ak ñas yee sandour touba balaa maa ñëw lii moo gën ñor combat bi yee ñoom sonko di sant sonko sama yaay sant bu baax a baax yee baara waay mais di sant matar Casamance alliance balde nee na alliance balde nee na moo ngi toog di la seetaan ah. nee na boo dalee ci kawam gaañu moom bu dalee sa kaw nga gaañu waaw lool moom moo ko wax moom la rek baal ba ma wax la yow it nga bàyyi xel lu ma la wax. lu ma la wax mooy waa di ñaan ndam di ñaan yàlla ndam barki allah ji fàllu yee bu doon affaire rek jàmbaar rek rek yee du maa ngi moom duñ guddee fenn waaw dama koy mettre en respect yàlla yàllaay may ndam yàlla suturaal mais tamit gars yi see war a jàpp yee combat dafa métti torop billaay wallaay damaa jeexal tàkk yee yoruma dara comprendre damaa jeexal dama weex tàll. da nga fa teg jeexal. teguma fa jeexal de xale laa damaa weex tàll yoruma noonu la demee nag xale du teg jeexal. muumin wërsëg yaa xale du jeexal wërsëg yaa kanam déggoo boole nga. waaw moo tax ñu ne Nja euh, euh, njaagu bu sëñ Fallou lu waral njaagu bu sëñ Fallou. yow man Baye Fall laa taalibe sëñ Fallou laa. te xool du ma rate église chaque dimanche maa ngi église wala samedi mais man taalibe sëñ Fallou laa kii yoddu sa kët di sant sama mbokk ñase nii bu baax ak tiijaan ak laaye nii waaw képp kii dund baatu yàlla rek maa ngi lay bëggee di la sant ndax lépp benn la Laurent waxal si alliance Baldé lu la dugal ci alliance Baldé loolu dimanche la rek moom nee xeex ak man maa ngi koy xaar baax bar sëñ baax du ma mettre en respect di sant waaw gën bi takki xam na si man non waxal ci alliance Baldé Fallou yàlla na ma yàlla suturaal may man ndam mais maak alliance bale du dossier xebu ma ko na dama xaa nawloo. ndax nga ne du dossier. non du dossier quoi bar sëñ Bamba xebu ma ko ku ko jox cër laa lamba ñu boole duñ ay noon samay supporter woo ma leen si xanga saltal wala dara si respect ndax man si respect laa damay liggéey quoi yee fekkoon affaire la saltal du ma bëri damay dund ji leneen mais làmba ma ñor comme gars yi nañ waa si xel bu sell rek yàlla maye ndam. te yàllaay may ndam yàlla na ma yàlla suturaal may ma ndam mais day sonn si man de billaay mais jàmbaar yi nii bëgguma sax di seen tur ay buuba waaye billaay ay mamor bu faas gis nga bar sëñ Bamba sama deret la waa Touba woo ñëpp waaw ak waa Sébi waa Sébi waaw ay candidat wuy pël pël ngay mel ni ku gëmem nii ñun waa Touba Mbacké maanaam xeexu baa ñu wax xel non non man moom lu dul yàlla deg mooma ah. yee baa ma bu ma ñëwee daa woon naar si buuxum soow man alalu baabi loon c'est pas l'appel mu gën a neex. bar sëñ Bamba nga jàkkaarloog Alliance Baldé li pël wax nga raak ak moom xeex ak moom. Ah. est-ce que Lona loolu di ko dëggal. mais xanaa du lamb du bëre dóor man ma nekk si écurie bu mag ñoom coach su Moussa Abdou Diouf Djibi Ndiaye ñoom Mbës. yee waa écurie bi yëpp ñoom mati waa écurie bi si ginnaaw la ñu ne yow yaay nekk si biir. mais luñ ma liggéeyaloo su ma demee si digg ñànkatan bi loolu laa fay jëfee bar sëñ Bamba. dara du xew xeex ak alliance Balde. bu dee yàlla moo may ndam mu neex yàlla. yaa logique gu làmb du ñu sax waaye yow. su ma ko yàlla bu ma tekki du ma xeeb ku yàlla bind. sama nawle la. mais loolu ambassadeur bi. waaw non sagale non violence. a caaro sam la demee ah li ma la wax ni doyo la ma dolli la. samay supporter woo ma kenn si coo. xeex bi xeex bi si digg ñànkatang bi la maag jàmbaar bi xanaa faye ñuy wal bëgguñu xaalis bi barke non non du raku ama de santul balde géy la du rakam ama moo ko rakoo mais ama man sama mag la non ama sax sama mag la waaw boo amee gars yi ñu ñëw waaw bëgg nga jàkkaarloog Alliance Balde dëgg moom ñëpp xam nañ ko. mais nga jàkkaarloog Alliance Balde wax ak moom. man bëgguma di def ay émission ay yii di tudd man lii sax duma ko tudd si émission day géem. jéemam lay jéem man may jéem sama jéem comprendre nga man maa gëm sama bopp ku yàlla bind du ma la bàyyi xel barki allah ji fàllu fekkoon damay bàyyi xel nit damay xool benn bopp mag bopp mais man tuddee ma nit sama bopp damay géem waxuma ngir dépassé benn mbër mbër yëpp samay mag lañ dama leen jiital bañ jiitu yee di sant cité bu baax a baax dañuy déggante daf may jox lu ne yaa ngi dégg lépp waaw xam nga mais ak yeneen mbër yi sax di sant suñu waa sax ñoom seex toomaak waa xam nga mais bu façon day sonn si man ragal. fii dama bëgg nga jàkkaarloog Alliance Baldé wax ak moom. waa dégg nga lu ma la. pour duma la. fii sa doom. bar sëñ Bamba. te sa doom sax am na noo koy dóoree mu reforce. sa gars yi bu ñu dégloo mu baax de Alliance nee na. déglu leen. Alliance nee na. dafay ñëw pour duma la. man doomu Ucaay laa. Ucaay. Ucaay. borom yére bu xonk bi doo dee nga ne doomu kan déggoo ma di sant waa januwaar bu ma ne ma ci question bi alliance nee na ah. da duma déggoo li ma ci ubbee be naa bat sëñ Bamba wooteel wooteel waaw di woo gaay bar sëñ Bamba lu ma jeexal dama leex tàll nas gaay nga lamb daa métti yaa xool damay am lamb damay sonn barki leeru alxuraan sarax yi sax balaa ma àggee damay daj lu ne tamit nas gaay jàpp ñu ñu ëpp moyen ni laa nañ si jàpp suñ ko mënee yee dañ see war a jàpp rek ndax ñun bés dina jot barki leeru alxuraan ñun ñooy jàppale ji ay nit man damay jàppale ji ay nit ndax xam naa lu nekk sama kanam te am na li ma bëgg bu baax na si gars yi jàpp ko waa góor jàpp si góor egg fa yàlla du foosu nag de mais maanaam liggéeyal yàlla la rek yee bar sëñ Bamba alal da nga yor xoola yomba dugg àjjana waaw mais di sant ñas waaw di woo ñas Matar Casamance vie di sant vie bu baax a baax a baax waaw di sant l'enfant jinne bi bilaahi di sant waaw sëñ Fallou Mbaraaxin Baay Sidi Mbacke mais Laurent Matar Casamance yeew bi nga duggee ci biir yeew bi maa ko fi njëkkee maa ko fi njëkkee wala maa ko mais dama lay laaj yeew bi nga duggee ci biir am na ñeneen ñuy génne yeew dem leen laaj leen mais sa yeew lay laaj waaw yeew loolu dawul sama yaram yeew bi ah nu koy indiloo waaw yeew bi la digal la wala non daa doon nelaw ñu yee ko dañ kaa yeew la demee bilaahi yeew bi moo loolu ñu waaw di sant waa Maka Kulibantang saa yi alliance Baldé na lamb de barki allah ji fàllu barki ji fàllu ak sirle kaani ji toj lañ seeg dañuy jëflante dañuy dañuy xeex su ma dawee sonko yàlla naa